yëgu ma ko sax. Kéba mu yëngal gësam. Kéba yaa yëngal gësam. aywa li ma jàmm. salaamaaleykum chers internautes de Sénégo et de Kawtef ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal encore une fois si seen émission xam nga ne bee passé dalaloon lañ fi ki nga xam ne ne moom mooy josa ak jarbaatam nee naa la temps yi ci tiktokeur yi laay dox tey nag ñu daje ñu ñu ñëw fii ci li nga xam ne nag ñoom ñooy les euh, la team immature donc c'est une team boo xam ne ne ñoom ñëpp immature euh, am na ko xam ne ne dañu commencé tournage bi déjà mais fii la ñu ne ñu ko dem jaay ay ginaaram ba kontaan ñëwaat bokkaat si tournage mel ni dara xewul mais balaa dara dama leen di jox ñoom ñëpp ku nekk nuyoo ak internet yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan après ñu dellu si si waxtaan bi hello. asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Sénégo ak Kawtef waaw di nuyu képp ku ñuy seetaan di nuyu Nims waaw Nims sama gaañ la moom waaw borom Sénégo waaw maa ngi bëggee di bëggee képp ku ñuy seetaan ak suñuy followers suñu famille ak képp ki nga xam ne yaa ngi ñuy safoo Ouz la. waaw salaamaaleykum ñu di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan di nuyu di nuyu suñu caméraman bi di nuyu suñuy followers di nuyu képp ku ñuy bégge du ñu safoo du ñu tiitaroo di kontaan ci bu baax a baax man la Jules. waaw c'est Badou Golden Boy ah, maa ngi leen di nuy maa ngi nuyu internet yi ñuy seetaan ñëpp di nuyu sama gars ma bokkal émission bi voilà maa ngi nuyu ñëpp daal ak suñu followers yeeg yëpp nuyu naa leen. waaw maa ngi bëgg di sawdaab maa ngi bëgg gars yi ah di bëgg suñu cameraman sikkim bu bijaaw bi xam naa moom jëm na az di la bëggee yow mi ah di bëggee gars di bëggee ñëpp nag di bëggee suñu followers yi ah di wax ne gars yi tey fii dina neex waaw. Ah, donc cher internet comme ni ma leen ko waxee woon rek ñu ngi fii ak euh, les quatre frères laa ko mën a tuddee parce que tout temps ñoom la ñuy gis ñuy defandoo TikTok ñoom la ñuy gis partout li ñëpp di laaj rek loolu laa leen di laaj lan la ñu bokk déjà dafa am ñu si bokk ndeex baay wala dafa am ñoo xam ne dañoo yarandoo rek wala da ngeen bokk koñ bi donc damay jox euh, ki nekk à ma mu mu wax ñu déjà. bon suñu lien bi moom actuellement euh, nous sommes des frères laa mën a wax. waaw euh, des frères pas de sang mais on des frères parce que réellement ñun ñëpp amul kenn ku si bokk ak sa morom. Mm-hmm. mais dem nañ ba nu ñuy nekkee ensemble nekkatuñ ko sax ak suñuy frères. Ah, parce que liggéey bi moo ñu boole ñun ñëpp ñu dem ba nekk ay frère mais bon quant à lien de parenté ñun ñëpp kenn bokkul dara à kër léegi. Mm-hmm. Euh, mag ba du ñoo bokk benn kër. Mm-hmm. te si réseau yi lañ xamee xamante mais dem na ba boole ñu bañ bokk benn kër. donc déjà yaa yaa Badou mi kon ci réseaux sociaux yi ngeen ah, mais dem nañ ba bokk kër. Ah. donc sama frère la. kii tamit du fi jug chaque jour. Mm-hmm. kii du fi jug chaque jour. maanaam kii fii lay fanaan. ñoo bokk kër mais ñi ñëpp ñoo bokk kër dañ fi dul fanaan voilà nous sommes des frères léegi euh, loolu moom c'est bon à savoir parce que ñu bëri ñu ngi ñu ko doon laaj déjà ku nekk da nga am sa sa compte mhm. euh, man je pense que ba du laa si gënoon ràññee avant après ma ma xàmmee saa waay ndax à chaque fois bu defee vidéo rek xaw a sérieux gars yi nañ ko naan no vidéo bi baaxul parce que yow sérieux jàpp la del del bàyyeeku donc yéen ñëpp ku nekk da nga am compte personnel mais est-ce que am ngeen benn compte boo xam ne yéen ñëpp da ngeen ko bokk Badou. waaw ñun ñëpp ku nekk am nañ suñu compte personnel mais am nañ benn compte groupe boo xam ne resement lañ ko créé parce que gars yi dañu doon suggérer loolu pour ñu créer benn compte boo xam ne groupe bi yëpp la comme ça dinañ ñu mën a boole si yenn concours yi comme Pulse yooyu noonu moo tax ñu créé suñu compte bi tuddee ko Team Immature 221. déjà mi ngi si ay cent et quelques mille euh, inspiration déjà ci ci ci seen TikTok balaa may ñëw ci inspiration bi temps bi déjà euh, nan ngeen di organiser wo ba am temps boo xam ne ne moom ngeen di def seen TikTok ak si journée bi euh, xam ne ni di ngeen def ay TikTok yoo xam ne da ngeen koy denc après ngeen koy publier de temps en temps mais ci journée bi le plus souvent ñaata tik ñaata vidéo TikTok ngeen di def di ko enregistrer. waaw ça dépend lépp loo gis nag communication la déjà dañuy waxtaan teg suñu emploi du temps joxe heure fixé ko bu ñëwee ñu xool scénario yooyu ni muy demee wala ku nekk proposé ñu échanger après ñu jublu ci liggéey bi. vidéo yi moom metti na méttiwul ndax liggéey moom boo ko miinee day yomb ci yow mhm. déjà instant bi ay professionnel lañ miin nañ ko day yomb ci ñun. pour du yàgg. du yàgg waaw. nu ko nit ñi di foogee du yàgg ndax dañ ko miin suñu domaine la moo tax mm-hmm. noonu la demee. bu bëri doo leen répété da ngeen di ñëw rek door au feeling daal mm-hmm. mais solin bi aussi des fois ñu bëri dañuy wax ñii seen yére yi fu fu muy nan nan lay demee en fait parce que da ngeen di sol ay yére yu bizarre yoo xam ne balaa ngeen di commencé déjà sax bi di daw nit ñi dañuy reetaan parce que yére yi euh, loolu aussi lan lan la lan leen di inspiration bi fa lay jógee solin bi habillement bi. waaw yére yi moom. ku ne xam ne yére yi ku xool yére yi dafa yàgg que yére yi sax ci fekkee ay jamono sax ñun fekkee wuñ ko parce que suñu maam yi ñoo ko doon sol léegi ñun bu ñu ñëwee di ko sol loolu lay fàttaliku lu bari parce que léegi ñu koy sol maa ñun buñ koy sol day fàttaliku ñenn yi suñu suñu yaay wala maam yi da leen fàttaliku lu bari seen i jamono liñ doon solo liñ doon sañsee seen xumbali liñ doon feccee genre dañoo ñëw nekk ay xale ñu pourquoi pas ñu imposer loolu ñu def mu jàll ñu ne pourquoi nañ ko continuer ñu continuer nekk ci lancé bu baax waaw mu neex bëgg ko di ko di ko follow mu neex am di ko enjoy mu dugg seen xol am nga ak tàngaay bi nii sax mooy loolu dama dafa tàng dëkk bi dafa doy waa daal yaa am gën a xam. waaw ah, noonu la demee. mais yéen ñëpp si seen famille amul kenn koo xam ne ne famille am am na parent boo xam ne ne euh, humoriste la wala comédien amul kenn koo xam ne si seen famille am na ko. voilà gis nañ leen aussi récemment ci euh, clip bu Jeeba ngeen nekk si est-ce que ci boobu clip rek ngeen nekk wala am na si yeneen clip yoo xam ne ne yee euh, figuré ngeen si te clip yi aussi dañ leen di woo téléphone ngeen ñëw wala da ngeen di def casting. waaw benn benn clip lañ xam ne figuré nañ si ensemble muy clip bu Jeeba bi si je me trompe hmm. voilà benn clip boobu la te fan la jógee sax Ouzombre moo doon def benn vidéo si son Jeeba bi mooy son boobu ñu def clip bi moom moo def son bi après Jeeba gis vidéo bi mu neex ko après si la ne pourquoi pas ngeen ñëw ngeen joué si clip bi quoi après ñu nekko ko d'accord ok amul problème si la link bi amee noonu ñu def clip bi mu réussir voilà. gis nañu aussi TikTok bi da ngeen ciy def business parce que yàgg naa seetaan de temps en temps seen live ngeen di xam nga suxi ginaar ak yooyu di di defar est-ce que ci ginaar yi rek ngeen ngeen di yem wala am na am na leneen loo xam ne ngeen koy def à part jaay ginaar bi. bon ñun moom liggéey rek moo ñu intéresse mhm. déjà li ñuy def nii rek euh, mooy suñu premier métier. Mhm. parce que ñun euh, on n'est pas simplement des tiktokers nous sommes des artistes comédiens. dañoo dem jàngi ji art euh, ba xam ko maîtriser ko am suñu propre euh, maison de production bu tudd Seetaan TV li nga xamante ne dañ ciy bind fii ngay gisee ni équipe bi nii am na scénariste am na kii euh, réalisateur am na cadre am na preneur de son ñi ngay gis nii ñun ñëpp. Mhm. waaw ku nekk am nga si sa sa métier. Mhm. Euh, boo duggee si chambre bi sànq di nga gis matériel yi nga teg nii yëpp ñu ngi si biir néeg bi. waaw voilà donc euh, ay influenceurs lañ d'un côté ay mhm. artistes comédiens lañ beneen côté te loolu ku nekk xam na ni métier la en dehors de ça tamit. ñun kaat ñii ñëpp ay éleveurs lañ aussi ñun ñi ñëpp ñooy ñooy defandoo business ginaar yi mhm. euh, ak yeneen business parce que liggéey si kaw liggéey boobu tamit dañuy gagné ay contrat de publicité mhm. waaw dañuy waaw voilà donc liggéey moom maanaam bëri na bëri na alhamdulilah daal am nga si sa métier loo xam ne à part bi waaw ci loolu laa lay wax ni xam nga ñun yàlla yàlla dafa ñoo boole mhm. parce que ñoo bokk lu ñuy def kii éleveur la ban éleveur la kii éleveur la kii éleveur la ñun ñëpp dañuy def ci business ginaar waaw maanaam éleveur d'un côté artiste comédien d'un côté scénariste réalisateur preneur de son yooyu yëpp ay métier la donc foofu lay waxee quoi métier yu bëri na quoi ay douze métier lañ macha allah donc loolu aussi c'est bien inspiration la parce que tey ñu bëri dañuy nekk ci TikTok bi te du ñu am métier peut-être ci TikTok bi la ñuy nekk am na ñoo xam ne aussi ñu ngi ciy jaay ay yére ay live di ci def ay live mais yéen déjà dangeen ngeen yor seen métier bopp ba pare après ñëw si TikTok bi donc da leen gën a euh, propulser ci ci kanam mm-hmm. euh, su ma juumulee euh, challenge Wally Seck bi magu démb mm-hmm. yéen yéen a ko gagné woon mm-hmm. donc comment ça s'est passé challenge bi nan ngeen ko defee ak bi ngeen gañee aussi ba yéeg ci li nga xam ne moom mooy seen Wally Seck bi lan ngeen ressentir waaw challenge bi moom avant tout dañ ko doon suggéré léegi après ci la Badou defee recherche bi andi son bi ñu waxtaan si xool nuñ ko war a defee teg scénario bi ñu defee ko noonu après mu jàll ñëpp kontaan aimé kontaan encouragé ñu après ci la Wally posté ne ñoo gagné ñu kontaan trop nag bég si ndax xam ne Wally moom du n'importe qui lay woo. Mhm. ñu kontaan ci dem yëg si seen bi kontaan. waaw suñuy followers ñëpp kontaan ci ñun. xaalis bi jeex na million yi jeex na bu yàgg jeex na bu yàgg jeex na bu yàgg ah. xaalisu yeneen contrat yi daal moo fi nekk ndax dañuy liggéey <laughs> foowuñu. <laughs> mais maa maa maa gars yi sonaluñ leen bi ngeen gagné maa gars yi message yuñ leen. ah ba instant bi sax dañuy laaj 1 million. déedéet kay max béy déedéet looloo ñu tax ñëw pour ñu sax dafa des comme sax bu ñu dem ngeen jox ñu si paas. mais comme jeex na moom nañuy ñëw ci pub yi xam naa peut-être xaalisu pub yi dina fekk mu des ba tey hmm. pub yi aussi comment nan nan nan lay demee parce que yenn saay damay gis ngeen sol ay couleuru benn produit hmm. di ci def TikTok hmm. xaw ma ndax boobu vraie publicité la wala da ngeen koy def pour attirer ñi nga xam ne ne euh, ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw produit boobu noonu waaw yére yi moom déjà bu dee yenn yére yi loolu challenge la woon ñu pourquoi pas ñu ñëw yére yi pour challenge bi gën a am doole. waaw Wave contrat la bu ñu signé ñu ak ñoom mais tamit ñun bu ñuy liggéey dañ ciy def même bu ñuy financé dañuy financé dem jënd suñu tisi ñëw ko comme couleur Wave dem defaral ko son def pipi pipi jaal waaw ñun dañuy investir dañuy gagné mais dañuy investir maanaam duñ def ci zéro mais dañuy gagné voilà am na te kii tey bu nga ko kii mu sol benn yére def ko pare na ci lekk xaalisam kuul mais ñun dañuy investir pour jéem a leneen. laa ilaa dañuy sax des fois dañuy gaañu des fois gis sax ku dagg ku tànkam dagg te teewul li ñuy def vidéo bi day continuer des fois gars yi dañuy sonn des dañuy dañuy sax feebar. ah di tourner web teewul teewul dañ koy gérer parce que liggéey liggéey la parce que moom moo ñuy fay kon lépp lépp lu ñuy def rek dañ ciy def dañ koy def àq ak yelleef ba mu mat sëkk du coup mooy loolu daal voilà yaa am gën a xam daal affaire moom yombul. yombul yombul yombul gis naa daanu bi mu daanu <laughs> loolu foog demee noonu Badou daanu boobu loolu béy di foog nga jël vidéo bi euh, wanaale ko gars yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan lii Badou daanu boobu nala la demee mbaa sa tànk damul wala rëxoo rek non Baara Mbaye boobu vidéo biñ koy def dafa tombé woon nag si kii mu taw quoi léegi ñu doon nettoyé waale foofu di defaale vidéo bi si laay balee noonu saan man fi may doon defe video bi man foofu dafa tooyoon. Mm. par rapport ak ñoom fi ñu nekkoon ñoom nice mais ñi may feccee noonu rek ñi may yëkkee benn tànk ba wàccee rek mm. si la tànk bi mbartal <laughs> tarxiis kii baaxuñu baaxuñu kii vidéo waroon ngeen dégg son bi ngeen xool dafa xaxataay xaxataay yoo xam ne ah non ah, dama ah, mais lu metti metti moom dañ koy continuer mhm. dañuy continuer gisoo jugaat naa vite fait mais attaque waaw waaw mi ngi noonu jeex na. di ngeen jot ay ay ay di ngeen jot souvent ay commentaires négatifs parce que ku xam page TikTok des fois du ñëpp lay bëgg ñii dañ lay bëgg di la félicité mais des fois aussi est-ce que di ngeen jóg des fois ay commentaires yoo xam ne day négatif ba boo leen ko liiree euh, mu affecté leen tuuti. bon commentaires yu négatif yi. Euh, buñ ne duñ si jot waxuñu dëgg dinañ si jot mais nag bëriwul wax dëgg yàlla suñu waxee dëgg. parce que ñun dañoo ñëw imposer suñu bopp impose suñu bopp si xolu doomu aadama yi si xolu sénégalais yi au au début nag c'était difficile parce que boo indee benn kii gars yi buñ xamuloo si ci jublu euh, mën nañ ñëw di la ŋàññ ça va may ñu dañuy émission dama ci biir dama ci biir dem leen bon xale yooyu doon yàqal fii nii bon commentaire négatif yi ñu ngi ciy jot mais bëriwul parce que ñun boo xoolee suñu public boo jëlee sa temps ngay liir commentaires yi ñëppay apprécier presque parce que dañuy dindi stress su gars yi au début nag euh, c'était un peu difficile parce que ñii ñi boo leen indilee benn produit balaa ñu koy comprendre dañuy nekk di la critiquer mais bu ñu demee ba xam loo ci jublu rek mhm. à la fin dañuy naan ah kon ñii nii lii lañ ci jublu woon moo tax très rarement lañ ciy jot mhm. ñun dañ jàpp ni sax presque amul amul ñu ñu bañ ñëpp ñu bëgg quoi lépp nice waaye te euh, li ma si bëgg a yokk mooy toll nañ fi nga xamante ne nit du ñu wax dara ba mu affecté ñu comme sa question bi li nga wax même tey ji buñ si jotoon bu grave a grave dañ koy supprimer rek jàll. ok maanaam da am mentalité de faire daal. loolu euh, gis nañ ni souvent aussi dangeen ngeen di toppandoo ñu bëri je pense que Badou ak Jules ñoo gën a bëri souvent lu ñuy def loolu su nekkee juumuma di toppandoo nit daal comme di def benn vidéo nga jëlaat même yére bi xaw a ko ñawaat toppandoo est-ce que souvent mës ngeen ko def am koo xam ne ne woo na leen téléphone ne leen supprimer vidéo bi wala li nga ma toppandoo neexuma est-ce que mës na am. waaw man bu amee benn yoon la rek te femme bi daf ko wax ñaar ci njëkk ma dindi ko mais kii moom kii ko ko wax moom da ko doon menacé leeralal ci loolu. Ah, boobu nag <laughs> non waaw pour cas boobu méttiwul quoi parce que kële la mooy député bi euh, député boobu noonu tur bi laa jàppul nag moo doon wax yéenay kan ba kenn du wax xam nga vidéo boobu voilà kooku nag benn benn benn xaw ma jarbaatam la xaw ma mhm. moo ma message ne ma ma video vidéo bi sinon dañuy porter dañuy dañuy dañ ñoom dañuy porter plainte quoi mhm. man nag affaire bi jaaxal ma mhm. ma message gars ma ma wan ma capture message yi wan leen ko ne leen kii nee na porte plainte après si la ma gars yi ne ne ko nekkoon na porte plainte non non ñu ne ma nekkoon na porte plainte nu def lu ko neex comme que moo ngi ñëw di di di menacer di def lu ko ne léegi nag ñun nañ ko bàyyi mu porte plainte après si laa ko waxee lool moom tamit xam naa mu xalaataat mu xam ne booy ñi ngi si seen droit dañuy foo après si la si la delluwaat ñaan ma ko si njekk mu ñaan ma ko si njekk waaw waaye par force au nom de quoi <laughs> mu ñaan ma ko si njekk ma may ko ko nànk waaw te TikTok rek laa ko ko may Instagram mi ngi foofu ma bàyyi. <laughs> mais nag xam ngeen ni waroo waroon nga ko supprimer ndax ak fi réew mi toll xam ngeen ni nawle dafa foor nawle daa foor donc lu ñu ñaan yëpp da ko war a def bu jógee foofu nag dama bëgg a xam si yéen kan moo ci gën a tàng xol parce nag àndandoo moom. kii day sedd kii mooy xam nga amorcé des fois yenn coups yi dina am koo xam ne moo ci gën a tàng si yéen kan moo ci gën a tàng xol eh na micro moom laa bëggoon jox micro bi. <laughs> non gënu ma see gënu nag. <laughs> gënuma sa tàng. Eh, ku gën a tàng. ku gën a tàng. ku gën a tàng. ku gën a tàng si ban côté xam nga tàng daa bëri côté. tàng daa bëri côté. tàng daa bëri côté ku gën a tàng. a tàng. bon voilà comme ça ñun euh, maanaam pas si suñu biir mais comme ça boo gisee ñu ne moo gën a tàng moom maanaam euh, xam nga des fois dañuy tourner génn si biti. Euh, population bi ñoom dañuy yaakaar ni personnage bi jeexagul. Euh, yaa ngi si personnage waaw dañuy jaawale personnage ak personne. Mhm. léegi nag moom boo ñëwee rek nga bëgg koo ñëw comme di ko wàccee di ko mbalak di ko jéem a wàccee non da lay freiner sur le champ foofu kay moom bañu si dara <laughs> foofu la ñuy waxee quoi. maanaam niñ lay aborder la. xam nga doo taseeg nit si mbedd rek gis ko rek jékki rek woowee ko benn tur wala wax ko benn affaire. nit ki boo ko gisee nit ki boo ko gisee da koy nuyu ci njekk mu fay la ci njekk nga ne ko liggéey def wala ñu waaw waaw wala ñu lay fett ci mbedd wala ñu gis naan la borom béyto bi meer nangam meer nangam meer nangam xam nga yooyu tamit neexul <laughs> te personne ak personnage vie privée bi vie artistique mais nit ñi dañ koy jaawale côté boobu kese la mais léegi moom ça va miin naa ko quoi ah léegi ça va au début la woon waaw waaw delloo si delloo nañ ma waaw <laughs> mais mais souvent xam nañ ne ànd lu mu neex neex même ñi nga xam ne sax ñoo bokk benn ween souvent du ñàkk ay rëx ci biir souvent yëngu dina am di ngeen xaw a jàppante ci benn affaire loolu bu amee seen biir kan mooy gën a amorcé kan moo kan nga xam ne ne tout le temps bu problème amee moom mooy régler problème bi ba lépp dellu si waat ci jàmm waaw ah, mag ji rek <laughs> maa mag ji bon pour pour cas boobu noonu comme comme niñ koy waxee chaque fois rek parce que ñun famille lañ te famille bi ñu nekk dañoo respecté wante maam ñun nu ñuy àndee nii yëpp euh, benn catégorie lañ mais dañoo magante te ñoom ñi man maa leen mag léegi cër boobu noonu dañ ma kaa jox euh, maanaam lépp lu mënti am man la ñuy jiital tey ji boo ñëwee commencé émission boo ma joxul micro bi dañ ma ma joxal kii nii ma commencé donc respect buñ ma jox la léegi nag ñun loolu mooy suñu force dafa am organisation bu ñuy demee chaque fois ki mag yow la ñuy jiital boo doxalee après nag boo boo doxalee lu dul noonu ñu ne la euh, ni nga doxalee kaddu du noonu mais chaque fois yow yaa initier affaire bi léegi man respect boobu ñu ma jox bu ma gisee benn yàqute tamit man may woote euh, xool nuñ koy defaree ni mu gën a naayisee quoi moo tax souvent ñun euh, si kanam rek duñ gaaw am yenn faay yi quoi bëggoon naa xam aussi relation bi nga xam ne moom ngeen am ak yeneen tiktokeur yi parce que tey yéen yéen fi nekk am na ñeneen ñu fi nekk Euh, ban relation ngeen am ak ñoom est-ce que yee ngeen am na ñoo xam ne ne yéen ngeen leen di demalante ak ñoom wala bu ñu amee dara lu ñu xewle dañ leen di woo ngeen ñëw yéen aussi boo leen amee loo xew xewle ngeen woo leen. ki ko jox yow da ngay lire moo gën la. non ñu nag gars yi moom que jàmm lañ te jàmm la ñu mu sa sekk parce que ku nekk ak sa domaine voilà suñ borom nag moo yor buntam di tëj di tëj moo xool comme neex mu tëj la moo xool comme neex mu tëj la. tey jii nañ ñu taalee mun nañoo fay taal keneen mais yàlla na yéex ah yàlla nañ tàq ba ci kanam kanam kanam voilà ñun moom ñëpp lañ sekk ak jàmm ak fu ñu mënta dem dañuy bëggee gars yi ka foore ambiance bu ñu paree ku ne mais du ñàkk nag ñoo xam ne dañuy bëgg a seen bopp naan booy yi ko jee a xew a niveau yooyu amul sens man man ak niveau bi lu mu yéeg yéeg yéeg yéeg yéeg wàcce sa bopp tollu suuf si parce que loolu moo loolu loolu mooy valeur nit siiw nga rek ah war a wax ak di wala wax amul sens man pour man amul sens en voilà parce que loolu siiw si nit nit moo la ko def kon nit kooku bu ñëwee di wax ak yow wàcce sa bopp moom nga waxtaan moom après nga dem du la yàqal dara wàññiwul la dara voilà ñu jàmm leen sëkk ak ñëpp ci man boog li ma foog ka jàmm leen sëkk ak ñëpp parce que man maa doxkat bi man moom ñi may àndal ñëpp leen sëkk dañuy kafoore dañuy saagante lépp la ñuy def war ñu football dañuy war dem football yi après ñu jàll ci jàmm fair play voilà ku mer nag sa la <laughs> gis nañ ni aussi am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi leen di suivre du ñu wax euh, seen seen seen seen nombre de followers ñëpp xam nañ ko macha allah mais dafa am si koo xam ne ne moom dafa yor bayre jigéen moom jigéen dañ koo topp man xaw ma lan lañ gis si moom. bu defee vidéo gars yi dañ naan tim bi ah saa waay la de kii moom ah, dafa coofe affaire yooyu temps yi gis naa balaa may ñëw dèjà vidéo bi ma bi ma mujjee xool bi ngeen nekk ci plage bi noonu di fecc. Mm-hmm. gaa yi diw ko bër bi Badou c'est l'ami des man li ngay wax yow man Jules mooy l'ami des <laughs> mooy l'ami des jeunes filles. yow la kii ñëpp la ah, loolu ah, ah, surtout loolu parce que parce que xam nga gars feeling bi. <laughs> waaw waaw surtout loolu parce que lool remarqué naa ko à chaque fois dañ may dañ may wax Badou dafa bëri feeling Badou bu doon jigéen ku bëri feeling lay doon à chaque fois dama koy gis ci commentaire yi quoi mm. peut-être xam naa feeling boobu noonu moo leen di neex comme feeling ba lay dégager boo amul compteur daa lay déranger <laughs> feeling ba la waaw kay te feeling ba waaw mi noonu nag jigéen waa góor ñi sax moom góor ñi dañ leen di bëggee rek. mais jigéen yi moom waaw jigéen yi xamal ne maa leen gën a bëgg parce que bu ma bëggul jigéen xaw ma lan laay bëgg. waaw bëgg naa leen du xalaat biisu. mais mais am na fan yi ay tiktokeur africain yu ñu seeti fii ma mhm. ma dégg ñu ngi Sénégal ñoom ah, Khalil Mariam Bovan xaw ma ndax xam ngeen leen mhm. donc est-ce que am ngeen relation ak ñoom malgré nekk ñu ay sénégalais mhm. ah yow yaay doxkat bi nañ la jox am amul problème yam ngeen ma nag lu wax rek ngeen ñëw ñu feroon ah tamit na amaguñ ko nag pour pour dire vrai répète waaw ah, amaguñ ko parce que am na su ma jub am na ma waxtaanal téléphone je pense que mu wax ma ko. Mm. ma ne ko ma ko sax. Mm. voilà mu ma ñoom ñoo ngi Sénégal. Mm. di coup ma ne ko ah xëy na bu ko yàlla dogalee rek dina am mais bu ko yàlla dogal tamit du am. parce que déjà connaissance bi nekku fi. bu fi nekkoon sax mun na yomb. mais que xamante wuñ pour man pour man du yomb en fait. mais bu ko bu ko bu waree am rek. day am mais bu warta am tamit nag ñu xam ni que amul. ngeen a dox link bi même ñoom a leen di dalal en waaw xam nga tey jii tey jii nit ki mën na ñëw ci dëkk. Mhm. day xool ñu mu xam rek fa lay dem. waaw bu la xamul tamit mënul ñëw si yow. Mhm. mais ñun tamit boo ñëwul si ñun xamuñu xamuñu la tamit duñ def benn pas pour fekk li sax. voilà <laughs> mais bu nekkee da nga ñëw Sénégal uniquement pour gis ñu ñun tamit dañ def la tout gis la mhm. mais bu nekkee da ñëw nag pour du ñun waaw dëgg yàlla nag suñu yoon nekkul si yow. exemple ñi fi ñëw. étuwaab euh. e étuwaab e ñëw na fi étuwaab e ñëw na fi. kala. Fanta Fanta mu ngi jógee ba France ñëw ba fi uniquement seet suñu def vidéo mu kontaan trop ba léegi ba léegi nii sax ba léegi nii bu gisee suñu vidéo dañ dañoo nam parce que bi mu ñëwee fi dañ yaatal xam nga sekk moom jàmm xam nga mu jëlee fi leneen tamit voilà mooy loolu fii ku ñëw. pour ñun ñu gis boo ñëwul nag pour ñun dëgg yàlla nag moom suñ mut daal mu ibbeeku na boo ñëwee yëmbal noor boo ñëwee ñun genre comme si que ñun problème bi ñun genre comme si que ñun ñi ngi gars yi ñi ngi planète terre ñun ñi ngi planète mars voilà ñun bok bokk ñoog gars yi planète laa mën a wax bon pour pour pour résumer sa question euh, maanaam ñun suñu contenu Euh, international maanaam boo génnee Afrique ñooñ la gën a ñooñ la gën a neex parce que genre ni ñii nii ñu ngi ay Bénin ay Côte d'Ivoire ak yooyu noonu bon peut-être ñooñu ay ñoom fay nara ay ñoom jéy lañ gën a amal link parce que ñoo bokk lu ñuy def mais ñun cosaan bi ñuy def euh, souvent ñii di jóge ay France ay ay Italie ak yooyu noonu ñoo si gën a intéressé wu loolu la gars yi di jox exemple ni Fanta Joli Mousso moom ba mu ñëwee dafa teggi ñëpp ne man ñii laa bëgg a gis mu ñëw ak ñu waaw kooku deuxième ki tamit am na ku njëkkoon ñëw kooku day tourner parmi les pays d'Afrique mais souvent ñii di def art euh, traditionnel ñoo ñooñu lay bëgg di defal vidéo waaw non non ni wéy ay tubaab lay wax boobu ma publier na e tubaab ku góor ki góor ki ku man maa publier loolu maa bind kii ah kan ah ok waaw waaw ñaar ñaar lañ daal en pour te dire ñaari tubaab lañ kenn ki daa ñëw après keneen ki ñëw maanaam ñi gën a sori ñi ñoo ñooy gën a introduire euh, intéressé aussi suñu produit quoi mm-hmm. waaw mais ñu ngi am ak ñoom relation yu baax moom wax dëgg yàlla gars yi si biti. Mm-hmm. Euh, bëggoon naa xam aussi temps yi dëkk bi xawee yëngatu tuuti tiktokeur yi ñu leen di message wax leen wax leen wax leen mm-hmm. ku waxul gars xaw la clash xam nga wala dara wala. ñiy wax gars yi di forcé ni ñuy wax am na ñoo xam ne génn nañ def ay vidéo wax mais dañ ko def à contre-cœur parce que dañ leen wax nañ wax am ñoo xam ne aussi wax nañ parce que kenn poussé wu leen nan ngeen dundee woon situation boobu noonu nee leen da ngeen war wax parce que si dëkk bi ngeen dëkk te day ay tiktokeur ngeen di leen forcé pour ngeen wax. bon yoon la nag ñu wax parce que ay porteurs de voix lañ bu ñu waxee dañoo war a wax bu ñu waxul dañoo war a wax ndax tey niveau ñu toll population bi la waaw et la jeunesse. kon bu amee lu metti jeunesse bi ñun ñëpp dañoo war jug ànd ak jeunesse bi mhm. waaw noonu la demee moo tax génn nañ wax mhm, si génn nañ wax def nañ vidéo wax mhm. bëggoon naa xam aussi nan ngeen gisee euh, ngeen baal ma ne bëgguma si woon dugal benn tour boo xam ne ne bokkul ak yéen émission bi mais comme defoon ngeen vidéo wax bëggoon naa xam nan ngeen apprécié wee euh, dernière vidéo bi Fa ay dara def récemment di ci euh, énumérer ñi nga xam ne ñoom ñooy les détenus politiques ba ci réseaux sociaux yi affaire yi commencé ko xaaj deux parties ñii di wax li ñii di wax li nan ngeen nan gisee vidéo bi mu def waaw bon di ko rafetlu rek euh, parce que moom boo xoolee ay contenu yam yu yu mujj moom dafa jël parce que ba muy débuté comédie la daan def mm-hmm. mais léegi boo xoolee li si ëpp si ay vidéo vidéo sensibilisation lay def ba mu dugalee video 3 millions bi di remercier sax euh, ba muy euh, résumé carrière am mm. loolu la si doon mentionné quoi mu ne ba mu demee ba am benn nombre de followers bi dafa préféré positionné wu côté population am xool li nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy naqarlu mm. te bu ñu waxee kenn du leen dégg moom mu porté wu wax ko nit ñi dégg ko mm. donc loolu ku ko gis te ngeen bokk domaine bi da nga koy da nga koy magnifier donc euh, di rafetlu initiative bi mu jël parce que ñun tamit bañ ci tollee comme ni ko Jules waxe def nañ ko ñun euh, defuñu pour nit ñi parce que comme ni ko Badou waxee sànq ñun ak gars yi bokkuñu planète ñun lu ñuy def ak gars yi ñun lu ñu sentir rek la ñuy def waaw parce que moment boobu noonu nekkatul woon affaire de politique mhm. affaire de Sénégal la nga wax ci lu baax walla nga wax ci lu bon mais di nga génnee benn kàddu wax mhm. te ñun alhamdulilah ba ñu waxee mhm. niñ ko waxee gars yi apprécier nañ ko waaw donc quant euh, Fa Aidara di ko encourager si yoon bii mu jël rek waa naan ko du courage rek. voilà Bédi donc dernière question bi avant ñoom ñuy wax projet yi ak tëj bi bëggoon naa xam yan jafe euh, ngeen di jànkonteel souvent ak artistes yi nga xam ne ne ñoom ngeen di liggéeyal. Euh, des fois nag dañuy am problème ak artistes yi souvent entrepreneurs yi. ñoo gën a neexal liggéeyal ñoom dañuy ñëw ngeen signe contrat ngeen def. mais artistes yi ñoom problème bu ñuy am souvent euh, dañuy génne son bëgg nga challengeal leen ko ngeen waxtaan ba juboo ci cadre ñu ne dinañ la envoyer avance suñ la envoyé avance nga def video publier ko ba pare euh, seen video jàll léegi ñu war la jox sa reliquat reliquat boobu nag da nga ciy daw di ci topp di ci topp di ci topp boo demee ba sës nag nga menacé leen foofu lañ lay soog a fayee mm-hmm. mais ñun moom ku ñu yoreel da nga ñuy fay parce que suñu image la ñu yaakaaru leen comme da ngeen si am souvent euh, problème est-ce que boo leen di laaj doo leen di laajte rek xaalis bi benn yoon. Mhm. ngeen jël ko après ngeen def vidéo parce que xam nañ ne de toute façon di ngeen def li nga xam ne moom mooy vidéo bi. Mhm. ñun loolu moo ñu gënal mais ñoom tamit du ñu woolu 100 pour cent. Mhm. te liggéey moom noonu la demee ñoom ñoo war a respecter seen kàddu parce que liggéey moom euh, souvent boo koy entreprendre da joxe avance bu nit ki pare nga jox ko reliquat mu dem muy bëree muy sport muy bépp domaine. noonu la ñuy liggéeyee mais ñun bu ñu respecté suñu kàddu ñoom ñoo war a respecté seen kàddu mais artistes yi ñoo ñëpp xaalis bëgg a compataat <laughs> si si lu ñu kii. vraiment li mu wax lool lépp ama ah. surtout nag am na yenn artistes yoo xam ne ah dañuy way wayu naxari non séeréer wayu naxari ñu jox la ko pour nga def si challenge fay la jox la avance yow da ngay def lépp loo mën lu yëfu dëmm yu bu ne di nga ko def pour son bi dem léegi nga am si vue son bi percé mais ñoom liñ doon xaar amuñu ko si léegi ñu lay dawloo bañ la fay sa xaalis ndax lan yow def nga sa video gars yi yow la ñuy reetaan mais commentaire uñu son bi son bi parce que son bi gars yi filuñu ko mën nga def son tamit gars yi duñ ko fil da ngay nangu da ngay nangu xam ne lii baaxul yàgg naa def lu baax mais bii ma def nii tey baaxul donc naa góor góorgóorluwaat defaat beneen. voilà voilà des da ngay defal nit ki son son bi perse ñeneen ñi ñëpp di ko defaat comme kaaw kii nii nu mu tuddati euh, safari dañ leen defal son bi non son bi perse mhm. yi bëgg son bi. mais am na ñeneen ñoo xam ne tamit danga leen defa son bi voilà vidéo bi day perse mais après ñeneen yi duñ fil son bi pour reprendre ko mais après ñoom tamit dañuy gis ne gars yi defuñu defuñu vidéo yi ñoom tamit ñu ne xaaral ñu noppiwaale ñu kuul bañ bañ a joxe xaalis bi loolu tamit dafa ñaaw. Azul ah, doo wax. waaye au oh, cri. vous devez nous payer notre argent. à travailler dur. dañ ko liggéey da ngeen ñu koy fay fii ñu ne ñun ku ñu amel dag ñuy fay ku ñu amel dag ñuy fay amul dara amul donc ay jeunes lañ nekk aussi ay porteurs de voix xanaa ñu ñëw rek ci projet yi ku nekk ma tendre le micro bi ngeen wax ñu projet yi fan la fan la toll Gilles. waaw comme sànq nu la ko Ousse waxee rek ñun maison de dañoo am maison de production. ñoo ngi liggéey ci ay cinéma ay série yooyu noonu waaw liggéey bi daal dina gën a yaatu li ci kanam rawati gët waaw gi dañuy dàbbale comme chaque année nuñ koy defee kooru TikTok yëngal dëkk bi te ñu koy seetaan dafa bëri yu bees dàq ay ñëwaat ah. waaw bees dàq <laughs> waaw comme ni ko gars yi waxee ñi ngi suñu maison de production bu tudd Seetaan TV moo ngi YouTube d'ailleurs sax instant bi dañoo stand by suñu production yi parce que dañoo amoon benn problème ak YouTube ba mu ba mu tëjoon suñu monétisation bi pan pour trois mois septembre bi la war la ko war a tijjiwaat ñu commencé waat liggéey bi incha allah waaw projet yaa ngi ñëw court métrage yaa ngi ñëw am na séri bu série bu garaw nag série bu oh dañ xaar rek affaire yaa ngi ñëw léegi léegi. waaw comme comme ni ko gars yi waxee rek projet yi mu ngi fi idée ba baa ngi fi bindkat baa ngi bind moom loxo bi macha allah lu mu virgulul baaxul voilà idée baa ngi fi parce que personnage gars yi gars lépp ngi fi di ko que comme ni ko saa waxee rek TikTok kii maanaam YouTube moo xawoon kii quoi xam naa la xawoon teg bët xaw teg bët quoi kii ñu yàq suñu liggéey parce que ñu ngi ci lancé bu garaaw série bu garaaw maa moom day génn rek oh yàlla bu yàlla bu cat dugg daal nañu ñaan jàmm jàmm ni am xam nga gars yi ñëpp yéenante jàmm ku nekk liggéey li nga war a liggéey wa am ci li nga ci war a am nga xam ni sa wërsëg la voilà mais en tout cas macha allah daal. comme yow yaa tijji woon ah, yaay tëjaat yaay mag balaa may ñëw si projet dama bëgg juste nga wax ma fan yi ak depuis bi nga xam ne dañu euh, restreindre li nga xam ne ne moom mooy TikTok bi mm-hmm. nan ngeen ko dundee est-ce que am na lu mu leen fàggaagal si seen liggéey mm-hmm. Euh, waaw yàqal nañu lu bëri nag mm-hmm. euh, parce que ñu ngi sant yàlla ñi daan liggéey ak ñun ñoo ngi jot contrat yi ba léegi mm-hmm. waaw parce que ñun alhamdulilah nag euh, demuñ fenn di ñaan ñun tooguñu benn mois bi nga xamante ne nekkuñ sous contrat mm-hmm. des fois mois bi dañuy jot ay contrat yu bëri donc si côté financièrement mu ngi continuer ba léegi alhamdulilah mais léegi retour yi foofu lañ amee gàllankoor parce que jii nii maanaam bu vingt mille personnes daan nekk en ligne mhm. ay cinq mille personnes ñooy nekk en ligne mhm. de ce fait ce nombre de vues day wàññeeku te loolu au fur et à mesure euh, peut-être entrepreneur bi mën na ko bañ a comprendre mhm. mu ne ah sama liggéey liggéeykat doxagul doxatul quoi waaw moo tax des fois mën nga am jafe-jafe côté boobu mais quant à tournage yeeg contrat yeeg lépp mu ngi avancé mais si côté visibilité bi daal lañu la ñu gàllankoor instant bi dafa wàññeeku bu baax lan ngay di mhm. bon di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan. Mhm. di remercier suñu followers yi comme ñu koy waxee rek parce que fépp fu ñu mënti egg ñoom la. Mhm. Euh, di remercier suñu famille bi nga xamante ne ñoo ñu soutenir accepter lu ñuy def. nangul ñu ko ba tey jii ñu egg si niveau bii nii bon di su di remercier famille bi yëpp di leen remercier si déplacement bi. Euh, di remercier Nimzi tamit mhm. parce que ba may débuté euh, boobu amaguma sax dix mille followers euh, daf ma jëloon defal ma benn kii présentation kawteef ak fépp mhm. waaw Nimzi Sénégal donc maag Sénégal yàgg nañ quoi di ko remercier moom tamit parce que joué na bu important boobu samay début la mhm. waaw di remercier képp ku ñuy seetaan rek waaw waa gàlle bi ñoom chaque fois dañuy bëgg ñu tur seen tur suñu jabar mag yi Mariama ah, Amina Aminta Jabu euh, kii nu mu tuddati sax Aïcha ah, ñoom ñëpp daal <laughs> dañoo dañoo bëri Badou dina koy yeggali <laughs> <laughs> voilà Nims yaay borom Sénégal xam nga ni gars yi gërëm nañ la bu baax waaye man tam maa ngi gërëm ki nga xam ne ne moom laa jàkkaarloo muy béy muy sama cadreur maa ngi leen di remercier bu baax di remercier ci accueil bi nga xam ne ne moom ngeen ñuy accueillir fii ah génne nañ ci biti ngelaw ñuy ñuy ñuy eh, respirer li nga xam ne moom mooy air pur bi comme niñ ko defee waaw <laughs> mais mais c'est normal amul benn problème ci tàngaay lañ nekk donc tàngaay moom ah, lépp ci la donc ñu ngi leen di remercier bu baax ñi nga xam ne ñooñu doon seetaan à travers Sénégal vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah.